commencé wu bi képp koo xam ne yaa ngi koy utiliser dafay dindi leel dafay dindi chute de cheveux dafay améliorer li nga xam ne mooy sa karaw daf koy liisal daf koy nooyal daf koy sëqal képp ku koy utiliser sa karaw day sëq boo amee leel ci rebord yi da koy dindi ba mu set wecc disponible na ci mbooleem boutique bio naturel yi pommade de cheveux bii am na ñaari façon pot bu mag bi moo nekk nii bii mooy pot bu ndaw bi mais rastamaan yi maa ngi leen di conseillé ñu jël diw bii boo amee crasse daf koy dindi soo amee bopp bu am góom daf koy dindi xale bu amee un an mën na ko commencé diwoo kii mooy shampoing bi nga xam ne dafay demee na sa karaw daf koy liisal daf koy nooyal daf koy rafetal dootoo amati chute de cheveux bii moom moom moo ci gaaw soo koy raxasee sa karaw doo am crasse moom lañ boole ak kii nga xam ne mooy euh, traitement cheveux bi sa karaw du damm du ruus dana sëq dana gudd dana nooy dana liis